daam ndax euh, xel yi mën na daal ci tey bu ñu demoon ci local yi dañuy kër gu mag euh, bu ñu ubbee urne yi huit heures quatorze heures Dame Diop gañe ko ministre Dame Diop gañe kër gu mag kër gu mag mokk na rumbux mokk na te ki ko mokkal mooy le ministre Dame Diop ni nga ko waxee ci jëf yi nga xam ne jëf na ko ak programme bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo fa nekk di ko jàppale teg nañ ko fii ak trois mois. yoo xam ne dañ ko fas yéenee def liggéeyal ko ministre Dame Diop vraiment kër gu mag moom euh, na ci xelam dal mm, mel ne lu mu téye ci loxoom euh, je pense que def nañ benn bloc soudé euh, uniquement pour jàppale ko teyit mokk na rumbux nag kon na ci xelam mokk na rumbux bu baax a baax yow xam nga ci dara parce que ñoo àndoon ci terrain bi dem ci groupement des femmes ak ASC e yi surtout la jeunesse di leen jàppale ci yu bare bare bari jàppale daam mooy solution bi xam nga xam nga njaarim fépp fay metti euh, suñuy jamono yi yu yàggul rek loo loo ñuy wax rek dañ naan la grand ko def Diourbel euh, muy doon loo xam ne vraiment dafa mel ne nag euh, jot na nag ñu mos le ministre Dame Diop mi nga xam ne doomu Diourbel la am na xam-xam bi am na courage bi am na fit wi tey itam bëgg na. génne Diourbel ci li mu nekk parce que nag qu'on qu'on le dit euh, ab dëkk bokk na ci li koy doxal euh, ki ko yor bëgg am yéene man am xam-xam te loolu gis naa ko ci moom deuxièmement programme am doy ma lool ci Diourbel euh, ma xar sama tànk tubéy ci ne même bu ko bëggul woon man danaa def le tout ba mu nekk suñu candidat à la mairie de parce que li ñu gis ci moom moo tax ñambaas euh, naa ci sax conseil départemental ndax euh, euh, bu boobaa kum ñu joxoñ moom la ñuy jàppale ci conseil départemental kum mën a doon rek parce que moo ñu doy moom moom ci boppam te it gis naa ne mooy solution pour Diourbel